ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di ip boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. ngeen ñaanal itam. ñu ñaana itam. kenn ci taalibe yi. kenn ci taalibe yi. di Cheikh Amar. di Cheikh Amar. nekkoon it borom yéene. nekkoon it borom yéene. amoon itam intention bu rafet. amoon intention bu rafet tamit. ndax ku yor sa teraanga it. ndax ku yor sa teraanga ci benn xalaat. amoo ci benn xalaat. budul di ko liggéeyal Serigne Saliou. budul di ko liggéeyal Serigne nga koo dugal feneen. mënoon nga koo dugal feneen. wala nga def ko feneen. wala nga def ko feneen. kon moom it kon moom it. nañ ko fasaaleel nañ ko fasaaleel. yàlla dellusiwaat ko ci sagom. yàlla dellusiwaat ko ci sagom. mu delluwaat ci wéram. mu delluwaat ci wéram. ndax kat ndax kat. kuy ñëw xel koom ñëw xel koom. man xam ma sa sikk. nee na moom xamul sa sikk. man kuy ñëw xel koom nee kuy ñëw xel koom rek. xaw ma sikkam nee na xaw xamul sikkam. 2014 nag 2014 nag. defoon na fi benn révélation nee na defoon fi benn révélation. ci caaxaankat ci caaxaankat. yi ne ci àll bi yi ci àll bi. di yuuxoog di yuuxoog. def lu nekk di def lu nekk. wax joojee. wax joojee. ñu jël ko ñu jël ko. am am daal di koy am ko féetale. am fuñ ko féetale. xam nga journaliste yi moom. nee na xam nga journaliste yi moom. am na ci ñoo xam ni am na ci ñoo xam ni. yokk rek mooy seen mbir. ñu bind ni ñu bind ni. dama attaqué. dafa attaqué Cheikh. ca wax ja ca wax ja. ba ma koy wax sax ba ma koy wax sax. ndaka filmé nañ ko ba dugal ko. waaye. waaye. adduna moom adduna moom. boo nee tekki rek tekki wan la yoon. ña taxoon muy wax nee na ña taxoon muy wax anañu gisoo leen fi tey boo wëree tool yi boo wëree tool yi gisoo fi benn ani waykat yi ani mbëri làmb yi ani mbëri làmb yi xanaa sëñ Saliou taxul loolu ñuy def sëriñ Saliou moo tax ngay def lu tax ñëwoo du sëriñ Saliou xaalis moo tax nga doon def may du Saliou Saliou jugu fi de lu Seydina Omar lu Seydina Omar waxoon. man kaana. man kaana. Muhammad fa Muhammad xad maata wa man kaana. yaxbudu laaha fa laaha xayyun laa yamut. kuy jaamu yonent bi nee na kuy jaamu yonent bi. yonent bi moom faatu na. jaamu yàlla yàlla jógu fi. Ah. kon nag. gisoo leen gisoo leen fi. kuy liggéeyal Serigne Saliou dara du la gàllankoor booy ànd ak nit muy ku baax am lu ko tënk am lu ko tënk te yàlla tax lay def mais ñëwal rek nga def na nga daan def lu tax ñëwuloo àddina rek nee na moom nag nee na Ousseynou la tudd sant kan nee na moo gën a pànk ci ñi Serigne Saliou defar lu mu ragal a wax rek nee na tëdd fay jooy wér na. ak dëgg rek la xam nee na ak dëgg rek la xam nee na xamul li caaxaan ni ci àll bi di yuuxu di way lu ne nga dugg ànd ñu nee na du Serigne Saliou moo leen yëkkati nee na lu tax ñëwuñu tey nee na dara jotu leen seen bopp rek nañ nekk nee nañ bàyyi caaxaan yi jayante bi naxante bi nee na àdduna du dara nee na Cheikh Amar nee na kenn gënu ko kenn ëpp ko yéene nee na kenn ëpp ko yéene it kenn gën koo rafet xol nee na kenn gën koo rafet xol it nee na loolu ñëpp xam nañ ko waaye léegi-léegi nga baax lool yàlla nattoo la ay nit wér wër la bon lool te bu dee nga dëgg sigil ndigaale lu nee na lu leer lay wax nee na lu mu xam sax nee na foofu rek la doon waxee nee na kon nag nañ leen ñaanal yàlla delloo ko ci sagoom